di gisal ci néew bi Serigne Mountakha xalifa général kullu murit mu yàgg fi lool tànn ak wér ak bépp xalifa général bu nekk ci réew mi di siyaar ñëpp di baal ak di wax ñu commencé ko bismillah rahmaan eggal ko ci alhamdulilah rabbil alamin mhm. waaw alhamdulilah koo xam ne yàlla dogal na sa wërsëg tëju Euh, incha allah boo jokkoo ak ñun incha allah daan lañ defal ay ñaan bu baax a baax defal la lu bëree bëree bëri ndax wàllu wërsëg dañ ciy liggéey lu bëri am na joo xam ne ci isaawe xaat lañ koy liggéeyee euh, euh, boole ko li lépp jox nga jëfandikoo ko su fekkee incha allah yàlla dina ubbi wërsëg bi te xéwal dina yokk bu baax baax a baax. waaw lépp damaa moom bépp jafe-jafe bu mën a am ak mën doon rek ñaan mën na ko saafara. Euh, feer bu mën a feebar ak feebar bu na maa dal ak lu mu yàgg-yàgg ci yow incha bu ñu jokkoo téléphone am na kenn yoo xam ne bu ñu jaaree yàlla mën nañu ko defal ndam bu mën a doon lu mu yàgg-yàgg ci yow bu ñu jokkoo ba jëflante yàlla mën nga defal ndam lu kawe suñu jortu. Mhm. waaw alhamdulilah rabbil koo xam ne yàlla dogal na ñu njabar la ba ba xamatoo foo nekk wala ñu nga nekk ci bërëb ñu jëlal la fa wala nekk bitim réew di liggéey. yàq sa liggéey yooyu yëpp incha allah mu ci ma doon incha allah rabbi rek buñ jokkoo téléphone rek incha allah daan defal ay saafara yu solo yoo xam ne boo ko jëfandikoo incha allah da ngay da ngay yëg sa bopp ak yëkkatiku bu baax a baax te lépp luy yàlla dina la ci musal mhm. te lépp nag du génn ci arxoon lañ koy def. Mhm. Mhm. waaw alhamdulilah rabbi bu fekkee waa wàllum jubóole moom dañ ciy yëngu bu baax jubóole maanaam mooy jëkkër a jabar joo xam ne yàlla dogal na seeni seen diggante neexut rat neexul daal walla ñu coow suba ngoon wala kër goo xam ne dafa bari coow wala entreprise boo xam ne dafa bari coow soo yàlla incha allah ñooñu mën na leen jubale ba nekk benn ci kàttanu suñu borom. Mhm. mel na nag dëkk bi mu mel ne dañ koy soxla lu mhm. la si seet si wàllum kayit moom dañ ciy yëngu bu baax a baax. Mhm. wàllum kayit dañ ci yëngu bu baax képp koo xam ne yaa ngi dugal benn kayit di xaar mu génn génnagul wala nga bëgg a dugal saa boo jokkoo ak ñun incha allah mën na la defal ay ñaan yoo xam ne boo ko jëfandikoo boo boole kook suufas juma sobeel incha allah boo ko jëfandikoo rek kayit boo dugal yàlla mën na koy def ndax mu génn moo xam biir réew mi la moo xam bitim réew mhm. Mhm. waaw feebar moom feebar bu la mën a dal ak bu mën a doon rek ak bu mën a doom ba ci jabet sax dañ koy faj te lépp na génnul génnul alxuraan jabet tension lépp loo xam ne mu ngi ci yow sonal la lépp dañ koy saafara te lépp ci alxuraan la lañ koy def su sell tawat bu ma dal ci la ci lañ ko saafara te bu soobee yàlla incha allah képp koo xam ne am nga tawat bu ba jàq sa yaram nga dem fu nekk incha allah rek bu ñu jokkoo téléphone ba ñu defaral la defal ba yónnee la ko jàll nga jëfandikoo ko da nga yëg ak tan goo xam ne mosoo yëg sa yaram incha allah rabbi mhm. waaw euh, man nag euh, Touba ak Dakar laa laa déplacé wu fi laa jaabante waaye jamono yi moom maa maa ngi soowu mhm. képp ku ma soxla incha allah rabbi mën nga jokkoo ci numéro yi incha allah daan déggante bu baax a baax mhm. waaw te lépp ci arxuraan lañ koy def ak ndax ñun ay doomu soxna lan nekk ay ay kon lépp li ñu def rek ci sariya lañ ko teg mhm. euh, euh, euh, suñu waajur doomu Sëriñ Bara dëkk dee moo ko jur kon ñu sët Sëriñ Bara dëkk dee direct lan moo tax lépp lu ñuy wax daal ci xam-xam lañ koy teg incha allah aju bu mu andi bu ma doon incha allah rabbi daan daan ko jaar ci arxuraan ñaan yàlla suñu borom mu may ñu ndam na arxuraan moom lépp ngi ci